tey Ibbu Juuf mbaa Ngom seen baat yu neex ya du riir a riir galenub ngëneelub tafxilaat lay jiina làmb ju jëm ci buur sati doomi fóore yi wàlli leen fii maa du laale ca saaru nóor yi wàlli leen fii ca saaru nóor del bind gees too koy nafar lu ko mooy nga ànd ak aatu réer ndem ràññewoo sukk ak jaraan tëggal ma tagg fi kaag mu góor ndem xàmmewoo njoogoog njigéen teewlul ma bàkkati garmi piir muy seeturaa eseki ñoñam ñoo tee ba toolu ñoñam ñoo ba toolu mbinduruur tax nañ ba ñépp di sot xalim càmmooñ di ñee mbindum di joor ñoo dekkalaat mokkal gu wér ëf jàngu yeeg yi moon kajoor ñoo yëngalaat yëg-yëg yi yaatal mbind maatam fuuta góor yee joxaat ali cëram tax feggu ak daa am valeur seeturages su waxat nga sàmm nga taaralaat tàggat nga tànn nga kaa ngi fóor siggal nga soññi nga jàngkat xirtal nga xel ci yax bu wóor siggal nga soññi nga jàngkat xirtal nga xel ci yax bu wóor njëngal ma doon bëgg a raafile yaa ndëpp dij ko ba roy di piir yaa tax ba boole yi dekkiwaat kuy beqi dellu di xeeñtu mboor ngañ faal di sot ngañ faal di sëpp ci daayi coos ñee bind ñuul ñee def couleur ngañ faal di sëpp coos ñee bind ñuul ñee def couleur salgal nga suñ mag ñee woyoon lañu tey ci téere bi yaa ko sóor kuy fonk daa raak aw ñoñam jéegoy sa jëf ya la dëkke niir gën-gën góor ak jigéen par yaa ngi dàqeeg naaru góor xejjat lewoo naar ak wolof yaa lu taaru te tënku leer bennoo nga bënnal teenu lem dootuñ cëroo ay njaw li teenu lem dootuñ cëroo ay njaw li béer social nga boole culturel pomme rouge de maasum new bu xuur li nga fiy liggéey ci almiñong doy nag jihaad kuy sàkku buur faire force ramp ak ay outil ku ko bëgg dootul jéggi poor teggil nga coonee tabax yaa man ci zeng nga xeeti verre vitrage yu wóor balkon yu jàkk say portu taaru na am valeur farloo yitte xaralaak xereñ ay ndaw yu xam finition ak décor farloo yitteeg xeralaak xereñ am ndaw yu xam finition ak décor lewet ak cawarte nga yóbbaloo ndëndum kali tama yaa ko foor daagul te wëy waay seeturaa es gaynde njaaya du bukki njuur sukran jaza kafa na xayral jaza yi doon sa muur na sa jàmm sax say ndam di law barkeel nga tedd di ni weeru koor buur yàlla yàlla nañu aar ci mbas fanqal nu ay sunu lewwu buur darajay yonen ba ñu wàcce woon am hindahum ya ca saaru tóor daam kor maree mag moxsina korona du te suñu xel di fuur daam kor maree mag moxsina koronaadu téye suñu géej du fuur maanaan ca dex ga ca màkka baas bay duusu way fu ma aw mu lóor alhamdu santati war na ndax sama géntu daaw ga de ren santati war ndax sama géntu daaw ga de war ren la leer asalaamaaleykum wa rahmatulah rabbika bi majnun